pato boy borom teungeej ak ku ci melni ñambay mom motax buma gisee rek mo xamne da moy ñew dekkam <laughs> mo tax buma gis moy sonal ndaysan nek nit ku baax nak mm-hmm. waaw jambar la ko ndaysan mm-hmm. mais attention amone mi ma gis amna doole de non amone amon doole hein rek yow daal mel nag ñu ñëw xam nga bu ma gisee da nga xam nga xam nga ne sa amane amane yaa ngi naan amane da la noo gisee Amanekh non ni ma ko gisee moom mooy loolu. Uh-huh. macha allah quoi. macha allah dafa xale boo xamante ne nii. Uh-huh. caatu mooy caatu géej dafa moom daanaan la. daanaan la waaw mooy loolu yaa ma gën a xam. ndeysaan mais bu lu gars yi wax. ak combat yi. waaye maa ngi nii rek di déglu rek. xam nga di ñuy taw di déglu mais ñu may wax benn combat MMA. MMA. waaw MMA. MMA wala king boxing. non king boxing king boxing xanaa king boxing saful. king boxing yaay borom. saful kii kii wul saful. walaay ah. man laa bëgg droit. king boxing saful man dama bëgg ñu boole ma si sport boo xam ne damay dóor nit ba kooku. Ah. ne ma nii ne ma nii baax na baax na. <laughs> abandon <laughs> abandon ma ne kii wala loolu yow kan nga bëgg kan nga bëgg dóor ko moom abandon waaw instant yii nag ni ma ni ma soxla moom bëri na si MMA bi. comme ñan. waaw Laurent Ndiago bu ñu tàmbali waat. Laurent Ndiago encore ah, si tolof tolof la jugee ma jugee si tolof tolof. <laughs> combat tolof tolof. combat tolof tolof tey jii bu ñu boole woon MMA foofu dañuy day si la ñuy xam kuy vainqueur bi. kuy vainqueur bi bu ñu la ñuy xamee comme mooy vainqueur maa moom. parce ah. que Serigne Diouf maa moom. mais mais sa diggante ak Laurent Ndiago lan la. mais lan la rek muy maanaam sénégalais yi ñoo doyalul sama diggante maa moom. sénégalais yi ñoo doyalul. loolu yow xam nga ni loolu loolu comme waa Ndiar dem la. mais loolu ci bi nit tiim. non man moom fii moom. maanaam fii daf ma jëlee kaw. ndax ku si mel ni sama papa Ibakan daf ma doon wax naa ma sa sa kër gi pare na sa kër gi pare na. Ah, pour man zaaru fii la mais ba mu ñëwee. Ah, ah. si yaa xam ne maanaam non instant dafa mel ni maa ngi Dubaay. waaw mu ngi mel ni père wala na de. dëgg mu ngi mel ni maa ngi biir Dubaay bi. ndax fii ni ma ko gisee climatiseur bi. mais kenn du Eric Favre. kenn du Eric Favre kenn du Eric Favre mais nag kenn du bës. madame Favre. waaw madame Nathalie. madame Favre. kooku soo maman la su lépp la. waaw ah, kenn du ni bës. bës tamit tay jii lii nii bu amee bës am na lu mu si liggéey. bu mm. ndax bës ñëpp gis nañ li TV ak liggéeyam ci làmb. Mm. bës moom dañ koy ñaar yàlla def ko nii. mais génn gi mais waroon tëggee. danaw waaw dana